maam Cheikh Al Maktoum tooñ ci sénégalais yëpp tout sénégalais imbu de justice tooñ nañ la ci 16 février. Mhm. d'accord euh, donc souvenir naqar ngeen ci am quand même. évidemment mm-hmm. évidemment mm-hmm. évidemment. parce que lu toll noonu ñu teg la ko ki ko teg mënul génn preuve ne yaa def. mënuñ ci am lu dul souvenir u naqar. d'accord mu coïncider ak suba aussi Sonko coïncidence boobu moom sa loo ci benn benn lecture. yaa ma wax léegi ne ma Ousmane Sonko ne na ñëpp ñëw. Mhm. bu kenn andi xeer loolu la wax bu kenn andi yàq loolu la wax la wax. kon kay jàmm mooy am. Mhm. jàmm mooy am. Mhm. moom woote na na li mu woote mooy ñëw leen jàmm ñëw leen ci jàmm. danaa dem wuyu ji ñëw leen yéen ñëpp ci dal ak tey. d'accord alors Cheikh xam naa ni. bëgg naa nag ñu ñëw ci événement bi nga xam ne dëgmal ngeen ko un quart de siècle boo xam ne pur am na ko muy euh, ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne fas ngeen fas yéene ngeen ko màggal euh, ci loolu benn question rek laa si laa la si bëgg a posé li ci des naa la bàyyi nga développé ko euh, mooy tey ci vingt cinq ans yooyu lan nga ñu ci mën a tënkal ci lu lu ñu mën a teg loxo quoi ci bilan boo xam ni lu positif la lu ñu mën a jàpp vingt cinq ans. peut-être pour faire un petit rappel ñu ko créé 3 février de 98. Mm-hmm. premier congrès bi ñu ngi ko def en 2000. Mm-hmm. ñu ko defee ñu def Serigne Moustapha à à l'unanimité ñu def ko président du parti. Mm-hmm. ak attribution yi ñu ko jox yëpp. ñu dem 2000 est-ce que xam nga ne Serigne Moustapha il était candidat lors des élections de 2000. dañu dem ba ci biir maam Cheikh Ahmadou Tijane Al Maktoum moo ko ne retirer sa candidature. mu retirer candidature am. parti bi continuer di dox. depuis boobu nag participer wuñ ci benn élection. mais Serigne Moustapha en tant que leader du parti PUR en tant que président du parti position bépp bu mu war a jël ci lander landerneau politique bi jël na ko. élection locale législative présidentielle bépp bu ci war a jël jël na ko ñu dem ba 2017 mu sant Issa Sall ak ñi mu àndal ne leen réactiver leen activité parti bi. ci la ñu demee élection. ci ñetti coalition yi nekkoon benn ñun demuñu ak kenn coalition mhm. le parti pur est parti seul à ces élections législatives de 2017 mhm. ñu génn ci ak ñetti député mhm. suñu député yooyu am taxawaay bu am solo bu ñu am ci assemblée nationale soxna Mbossé Guiro ñu def ko parlement au niveau de l'assemblée de de la CEDEAO mu nekk loo xamante ne nii c'est parce que taxawaayam moo tax ñu jox ko ko ñu am liggéey bu ñu fa def. ci wàllu rigueur présence. ñu ñëw ci élection locale yi passé parti pur participer ci dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi balaa mooy dugg sax ci élection Yewwi Askan Wi parti pur nekk ci l'un des partis fondateurs. moom parti mm-hmm. pur Pastef ak mm-hmm. Taxawu. Mm-hmm. ñu téye ko parce que li ñu tàmmoon ci mu nekk benn prouesse nag. parce que li ñu tàmmoon ci coalition. ci politique gu Sénégal fukk ak dañuy daje toog waxtaan jëmale lu kenn xamul. Mhm. mais dañu ne bii na ñetti parti ñeent PDS bokk na ci ñu génn ñu ne nañu toog waxtaan am lu ñu teg ci table bi bu ñu ko tegee ci table bi ba pare ñeneen ñi ñëw ñu xool nuñ koy améliorer. Mhm. de ce fait parti pur noonu la jàppee ci coalition bi. Mhm. ñu dem ci élection locale yi. ñu dem ci am euh, cinq plus de 600 conseillers un président de conseil départemental. jóge ci élection locale yi ñëw ci élection législative yi. Mhm. am ci 11 député députés yi sax ce sont des députés de la coalition Yewwi Askan Wi puisque ci liste i Askan Wi lañ dem même su fekkee ne parti pur moo leen proposé. Mhm. mais seen cosaan parti pur la. te ñun li ñu gëm ci politique li tax ñu dugg ci politique. moo di contrairement ak li am ci champ politique bi politicien dafa war a nekk une référence dafa war a nekk koo xamante ne ni waxam du teggeeku mhm. dafa war a nekk koo xam ne nii dafa war a am jikko yu sell mhm. dafa war a nekk koo xam ne nii dafa am yërmande ci askanam politicien bi ci boppam c'est un serviteur mhm. c'est pas quelqu'un qui vient se servir c'est un serviteur bu sénégalais yi waree dem vacances moom mu privé boppam vacances toog di liggéeyal sénégalais yooyu. bu sénégalais yi tëddee di nelaw moom mu toog di veiller di liggéeyal sénégalais yooyu. perception boobu la ñu am ci politique. bu dee action politique perception bi ñu ci am vision bi ñu ci am moo di euh, l'humain. d'accord sénégalais bi. moo nekk au début moo nekk à la fin. d'accord lépp looy def ci cadre politique. d'accord da nga ko war a teg. ci nit ki nga war a jiital nit ki nga war a sóoraal. événement bi ngeen bëgg a féete muy les vingt cinq ans ci week bi ngeen ko jàpp noonu. ñu ngi ko jàpp le 19 hmm. dimanche mmh. prochain. Okay. au stade Amadou Barry la mise en place commence à 15 heures et ce sera une belle fête. ak la présence ak ak ci teewaayu euh, sëñ Moustapha. ah sëñ Moustapha nag man maîtriser wu ma agenda am. Mhm. man li ma war moo di li ma war ma def ko. Mhm. ak ñi ma àndal. ñu def li ñu war moom agenda bu ko mayee mu ñëw bu ko ko mayulee eh, mu wax ñu li ñu ñi nga xam ne ñi ñoo ko war a ñëw représenté. Hmm, d'accord ah, lan moo lan moo gën a yëkkati euh, événement boobu. xam nga yaa ngi koy wax sànq xëy na parti pur nga neexul waxtaanee. Hmm. yaa ngi wax nga ko ci mais perception la pour wax rek ne depuis vingt cinq ans ce parti existe et depuis vingt cinq ans ce parti. mi ngi indi ay valeur ci arène politique bi li xew assemblée xëy nañu ci bëri loolu lañu jàpp waaye gis nañu ci début législature installation bi que gën a nekk ndaw ci assemblée bi parti pur moo ko proposé Yewwi Askan Wi mu jàll nekk député ñëpp Sénégal yëpp gis nañ taxawaay bi mu def ci fulla fayda ci yar buñ ko yar mu am taxawaay jàppul ne xale laa damay noppi. Mhm. mu jël responsabilité lu mu gis te ñun ci loolu lañ ñu yar mooy dëggu lu mu gis ci doxalin boobu jour boobu lu ci jaadu mu ànd ci lu ci jaaduwul mu dénoncé ko. Mhm. te bu ñu ñëwee ci commission yi dégg ngeen suñu député yi Massata mi eh, ñu tëj ak mamadu ku nekk gis na seen intervention lors des plénières mu nekk intervention yu am solo ba ci commission yi intervention yu am solo. donc parti pur lu mu andi dañu bëgg politique bi ñu teg ko ci valeur. Mhm. parce que gis nañ ne léegi xam nga kilifa dañ koy naw ci kàddu. Mhm. bëri woon na problème yi ñu am durant la Covid 19 xam nga lu ko indi mooy ñiy wax di digle pour nit ñi def seeni wax jaruñul dara. Mhm. su fekkee ne yow mi nga xam ne ni da ngay wax di digle nit ñi wax a def su fekkee ne say wax tekkiwul dara ñi ngay waxal duñ la dégg. et actuellement loolu moo am su fekkee ne dañu am président de la république boo xamante ne ni waat ci alxuraan waat ci kaam ci toora waat ci injil ne du ma nommé ci décret sama rak ñu teg ci ay weer mu nome ko mu nekk président bu waat ne du ma def troisième mandat mu ne dana ko def parce que le silence son silence est tellement éloquent que moo gën a ëpp solo wax sans silence et bruissant de parole li muy tekki mooy. nee na dana def troisième mandat. Mhm. président boo xam ne ni danaan bàyyi naa njuuj njaaj kilifa. Mhm. kilifa dana njuuj njaaj ba naan danaa ko bàyyi naa ko. président boo xam ne nii sénégalais yi ñoo la jiital teg la fi. Mhm. ngir nga aar leen nga war a tëdd njaaxaanaay. nga ne dossier yi nga xam ne nii dafay atteindre ñi féete ak man dama ciy teg sama conc waaye Ousmane Sonko bu saxatee ma tëj ko. Khalifa Sall bu saxatee ma teg ko Serigne Moustapha bu génnee ma provoqué ko te nga ne yow yaay président de la République du Sénégal Macky Sall c'est un pompier pyromane. mooy maanaam day taal daay gi bëgg ñëw sol casque pompier ne daf koy fay askan wi nag comprendre nañ sa démarche. on a tout compris. on a tout compris <laughs> comme ni nga ko waxee. Alpha Blondy moo ko wax. exactement <laughs> ba tax na nag. Mhm. am na loo xamante ne nii. askanu Sénégal. Tikenja plutôt Tikenja Tikenja Fakoli. waaw en tout cas daal ñoom kenn la ci ñoom ñaar. Mm-hmm. Tikenja effectivement. Tikenja waay. waaye li ma bëgg wax moo di. Mm-hmm. askanu Sénégal. lu mu mayul Abdou Diouf. Mm-hmm. mayu ko Abdoulaye Wade du ko may Macky Sall. Abdou Diouf lu ñu leen mën di wax. ce sont des hommes d'État. Macky Sall il est tout sauf un homme d'État. d'accord merci beaucoup. ma loo xam ni itam vraiment xam naa ni di ci ànd ak man ñu ñaawlu ko mooy li nga xam ni moo xew wal ri loolu moom jàpp naa ni lu lu lu lu ñu lu ñu lu ñu ñaawlu la te li koy waral itam mooy euh, ñun ci corporation bi ñu nekk dara gënul ñaaw ñu ñuy seetaan en direct télévision ñu koy tëj cest à ci air bi ñu toll nii ak lu mën a xew ci ñoo xam ni defuñu dara lu dul wane actualité wane information ñu gis li nga xam ni moo xew Touba ñëpp gis ko kenn créé wu ko. gis ay journalistes yoo xam ni mais ñoom ci àddina bi mais dañuy filmer ay guerre dañuy filmer lu li gën a graaw gis nañ li xew France gis nañ li xew euh, États-Unis gis nañ li xew feneen ak feneen ay journa Ukraine tout le temps yaa ngi koy gis boo taalee télévision yaa ngi gis loolu mais jàpp naa ni nag vraiment jot na aussi ñi nga xam ni tey notamment Sénéral nga xam ni suma grand bu baax moo fa nekk Babacar mais lii bokk na ci li nga xam ni da koy yàqal parce que lii dara jaru ko mm-hmm. ay confrères. yoo xam ne nëgëni si waroon na fekk ñu def seen émission. depuis une semaine. ñu privé leen ci li nga xam ne mooy seen seen seen signal. dara gënu ko ñaaw. loolu nag ñi ngi ñaan vraiment mu bañ a ci am. et c'est pas la première fois. tout dund na ko. mu nekk loo xam ne dara rafetu ci. Ah lii def war a arrêté. tout loolu moom dama ne woon vraiment naa ko wax te jombul ni xëy na loolu di nga ci di nga ci mën a. démb fa la ñu jógee. ok Serigne Moustapha Sy le parti pur et son président Serigne Moustapha Sy dañu dem démb. dem massawu leen coono. Mhm. dem témoigner leen suñu solidarité. Mhm. wax nga ko Sénégal dafa dugg ci dictature. Mhm. Macky Sall def na ay meeting nee na dafay def tournée politique. lu tournée politique ay meeting la rek ci campagne la nekk. pourtant loolu wal fajri bi mu tëj dem na couvrir ko. lu tax Walfadjri amul droit dem Mbacké couvrir activité opposition bi. plus précisément activité Pastef. tout à fait. est-ce que Ousmane Sonko moo def. Hmm. mais sénégalais yi ci boppam ñoo dem ba bëggatuñu Macky Sall. Hmm. et ñàkk bëgg bi ñu ko bëgg moo tax ñuy manifeste seen mécontentement. Hmm. am na ñu koy manifester ci wax bu dal. am na ñu koy manifester ci ci wax bu dalul am ñu koy manifester ci sànni am na ñu koy manifester ci anam yu bëri. loolu warul mën a tax. journaliste. Euh, benn tele ñu. di teg si yoonam loolu dafa xewi loolu dafa xewi. parce que président loolu loolu dafa sax xew. loolu sax dafa musul xew. Papa Ngagne loolu dafa musul sax xew. Papa Ngagne parce que président bi ñu am. ok dafa xewi moom ci boppam. d'accord alors ci message bu mujj lan ngay tàggoo ak ñi nga xam ne ñoo la doon suivre ak lan ngay waxaat ci li nga xam ne mooy événement bi nga xam ne yéen a koy préparer aussi. waaw li may wax mooy ci événement bi ñu jëm. Mhm. maa ngi ñaan militant pur yëpp. di ñaan sympathisant pur yëpp di ñaan bépp sénégalais nga ñëw ànd ak ñun dimanche ñu célébrer les vingt cinq ans du parti d'unité du rassemblement mm-hmm. di leen wax ne parti pur dafa yitteem yéeneem mooy mu andi politique boo xam ne nii duñ ci gis leneen lu dul askan wi d'accord politique boo xam ne nii mm-hmm. jikko bu sell moo koy lal mm-hmm. politique boo xamante ne nii kii def politique serviteur lay nekk. Mhm. du am benn privilège. beneen bi ma di ko jëmale ci régime bi. Mhm. di wax le président de la république Macky Sall di ko wax ni ko nguur gi day donnu ko. Mhm. ay sénégalais ñoo jóg jël seen bulletin ñi votel ko ñi vote contre moom ba bi ñu defee le point ñu jàpp ni moom gagné na. sénégalais yooyu ñoo jël seen am-am. sénégalais yooyu ñoo jël seen doole. jox ko ko ngir mu aar leen. moom moo taxawoon wax sénégalais yi ne leen ñaari mandat lay def sénégalais yi gëm ko ci loolu. ñu ngi koy wax ne ko dëkk bi bu takkee moom moo ko taal. fitna bi ñuy wax ne mi ngi ci dëkk bi moom moo ko andi. li xew Pastef ñëpp ko wax ñu wax ñaawlu ku ne Pastef la bokk mu jàppale tëj on est dans quel pays est-on sommes-nous dans un état de droit mm-hmm. il faut mu dellu si xelam xam ni li doon am démb ak barke démb mënatul am mm-hmm. li doon am du temps de du président Abdoulaye Wade mm-hmm. mënatul am d'accord li doon am du temps du président Abdou Diouf mënatul am sénégalais yi am nañ beneen conscience. te danañu jël seen responsabilité. jërëjëf te di la gërëm. ci invitation bi jërëjëf. di ko rafetlu. Mhm. et di la ci gërëm daal. merci beaucoup alors Cheikh Tidiane man aussi ma gërëm la ci bu baax a baax man vraiment am naa mbégte parce que jàkkaarloo naa ak koo xam ni wax dëgg yàlla ku ku ku ku ku ubbeeku la ci dënn. Mhm. parce que malgré question yi ni muy ñëwee terewul même boo may rectifier sax ci sumay erreur di nga ko def. ak ak poliment vraiment mu rafet loolu apprécier naa ko bu baax euh, jàkkaarloo naa koo xam itam il est convaincant macha allah koo xam ni ku maîtriser euh, maanaam euh, parti bi nga xam ni am na ci ndombo tànk la ku ko mën défendre la loolu itam gis naa ko gis naa itam koo xam ni ku am pété la ci opposition gis naa taxawaay bi nga xam ne moo ne nga ko loolu apprécier naa ko bu baax a baax. merci beaucoup euh, vraiment jërëjëf. merci, merci beaucoup tijan Tidiane Youm la euh, moom nag la ñu dénk lépp lu aju ci wàllu stratégie ak euh, maanaam animation plutôt vie politique vie politique ci parti PUR moom la ñu doon recevoir mbokk yi tey ci seen émission Faram Facce ñu leen di jox daje incha allah ci beneen rendez-vous bu ci yàlla andee jërë ngeen jëf.